63 671 Khady Dione école privée groupe scolaire Alassane Seck 63 673 Diama Diop lycée de Pikine 63 679 Mati Diop lycée Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Pikine Adama Diouf Ya Salamu Laye 63 684 Khady Diouf groupe scolaire Cheikh Khalifa Ababacar Sy 63 686 Ndeye Salla Diouf complexe scolaire Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh 63 687 Souleymane Diouf lycée de Pikine 63 688 Ndiouga Dioum lycée de Pikine 63 693 Mame Aïssa Fall école privée Le Capitole 63 695 Sadia Fall centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Pikine 63 696 Salimata Fall lycée Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Pikine de académique Limamou Laye école privée groupe scolaire Assane Seck 63 699 mairie Fati école privée groupe scolaire Assane Seck 63 701 Anna Ñilaan Faye école privée Lay collège seconde sens 600 euh, 63 703 Rokhaya Faye complexe scolaire Oméga 63 Gomis école privée Le Capitole 63 708 Jean Baptiste Gomis école privée l'avenir 63 710 Daba Gueye centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Pikine 63 711 Khaldi Gueye école privée Carl Jaspers 63 école privée collège seconde sens 63 Euh, complexe scolaire Oméga 63 716 Kourakan carillon scolaire Limamoulaye 63 718 Alimatou Kairé école privée groupe scolaire Assane Seck école privée Sangomar Renovation 63 723 école privée groupe scolaire Assane 63 724 Maïmouna Koné école privée Le Capitole 733 Betty Sissoko école privée laïque Mouammar Kadhafi fin de liste ñu fàttali leen ne on était un peu en retard par rapport sur 1135 fii ba tey si li nga xam ne euh, donc lii moo nekkoon résultat second tour bu L prime bi donc ñu ngi ak euh, ba tey ba tey sur 1135 euh, série L2 les noms suivants sont les noms déclarés admis d'office

Abdoul Aziz Dabakh de Guédiawaye baax de Guédiawaye numéro 63 841 Ahmadou Sow Ahmadane Sow passable lycée Seydina Limamoulaye lycée 63 numéro 63 887 Wallou Sy passable Academia Limamoulaye numéro 63 Sow Seydou Hassab lycée Seydina Issa Rahoulaye numéro 63 902 Sokhna passable banque islamique numéro 63 enfin fin de liste numéro passable lycée Seydina Limamoulaye série L2 la woon euh, jury 11 35 si li nga xam ne mooy euh, résultat premier tour donc ñu proclame résultat second tour ba tey série L2. la liste des admissibles pour le deuxième tour. Serigne Atex Mbacké Soumaré numéro 63 837 école privée les praticiens 63 838 Adama Sow école privée Espoir Éduc 63 843 Amath Sophie Sow lycée Seydina Limamou Laye 63 845 Awa Sow lycée Seydina Limamou Laye 63 851 Hawa Sow école privée Machallah School 63 852 Khady Sow école privée Espoir Éduc 63 854 Maguette Sow école privée Inchallah Marem Sow Kaospey 63 851 Mohamed école privée les praticiens 63 864 Souleymane Sow cours privé Inchola School 63 866 centre d'orientation académique 63 868 Aliou Sy lycée Seydina Limamou Laye 63 869 Aminata Sy groupe scolaire de Bac Malick école privée Cheikh Ibrahima Niass Baye 63 871 centre d'orientation académique 63 874 Issa Sy lycée Seydina Limamou Laye 63 école privée Laye School 63 884 Ramatoulaye Sy lycée Seydina Limamou Laye 63 885 Sophie Sy lycée de Pikine 63 888 Mariama Syll lycée Seydina Limamou Laye Amar Sylla école privée Charles Jasper 63 892 Astou Sila lycée Seydina Limamou Laye 63 894 Cheikh Sila Ya Salam Laye 63 895 Cheikh Tidiane Sila lycée Seydina Limamou Laye 63 896 Fatou Sila lycée Mame Abdou Aziz Sy Dabakh 63 897 Sila école privée les praticiens 63 898 Khadim Silla cours privé rénovation 63 900 Mohamed Fadel Silla lycée Seydina Issa Roulaye 63 903 groupe scolaire de Bax Prudence Silva lycée Seydina Limam Laye 63 Ami Colletal groupe scolaire Le Baobab 63 909 Oulay Tall groupe scolaire Baobab 63 école privée Cheikh Ibrahima Niass Baye 63 911 Ndeye école privée Espoir Unique 63 913 Pape Amadou Bachir Tall académie Al Imam Tamba lycée Mame Abdou Aziz Sy de Guédiawaye 63 917 Aminata Toumoura école privée Cheikh Ibrahima Niass Baye 63 919 Marie-Catherine Eiffage Tandeng centre d'orientation d'académie 63 920 Mame Khady Tandeng lycée Seydina Limamou Laye 63 927 Aïssata Dia Thiam centre d'orientation 63 931 Dieynaba Tall lycée Seydina Limamou Laye et enfin 63 933 Fatou Thiam école privée Cheikh Ibrahima Niass mu nekkoon série L2 bi si deuxième tour yi donc mu des série S2 euh, ba tey si jury 11 35 fii si lycée Limamoulaye ak ñun en direct ci Sénégal 7 TV ñu bàyyi président du jury mu délibéré wala mu proclamer résultat yi. baccalauréat de l'enseignement secondaire. c'est S2. baccalauréat de l'enseignement secondaire année 2024 section normale résultat par ordre de mérite. liste des admis d'office numéro 64 74 série S2 sciences expérimentales numéro 64 74 Aïda bien Serina Issa Nouroulaye 64 44 Diariatou Sendou assez bien lycée de Pikine Mohamed Sey mention assez bien lycée Seydina Limamoulaye 64 117 Aboubakry Sow mention assez bien lycée Seydina Limamoulaye 64 50 Cheikh Luc Bienvenu Sène mention assez bien école privée Rose Dieng 64 105 Soli mention passable lycée Seydina Issa Nouroulahi 64 60 Mohamed Sen mention passable lycée Mam Abdou Aziz Sy Daba de Guédiawaye ouais 64 070 Seydi mention passable lycée Seydina Limamoulaye 64 Sey mention passable lycée Seydina Limamou Laye 64 092 Aliou Sidibé mention passable lycée Seydina Limamou Laye 64 passable lycée Banque Islamique 64 102 passable lycée Seydina Issa Nourou Laye Aminata Mamadou mention passable lycée Seydina Limamoulaye 64 071 Boubacar Seydi mention passable lycée Seydina Issa Rouh Laye 64 097 Bassine Sine mention passable carillon scolaire Limamoulaye 64 103 Baye Modou Sok mention passable lycée Seydina Limamoulaye 64 Sow mention passable école privée Rose Ndié 64 100 64 043 Massaer Segnane mention passable Seydina Limamou Laye 64 113 Mohamadou Saliou Souare mention passable Seydina Issa Nourou euh, Cheikh Tidiane Segnane mention passable carillon scolaire Limamou 64 123 Amadou Sow mention passable lycée Seydina Limamoulaye 64 045 Adama Sen mention passable lycée Seydina Issa Nouroulaye 64 034 Ndeye Mboup Seck mention passable lycée Seydina Issa Nouroulaye 64 053 Fatoumata Sen école privée les praticiens 64 065 Rokhia Sène mention passable Sédi lycée Sédina Limamoulaye 64 099 Madani Sissoko mention passable lycée Sédina Limamoulaye Ami Sey mention passable lycée Sédina Limamoulaye et enfin Mbayan Sey passable lycée Seydina Limamou Laye. moo nekkoon résultat premier tour ñi nga xam ne ñoom defi sañu jàll S2 bi donc ñu proclamé ba tey série S2 euh, deuxième tour pour jury 1135. baccalauréat de l'enseignement secondaire année 2024 section normale résultat de numéro de des série S2 science et expérimentale jury 11 35 numéro 64 036 Ngadi numéro Baba Papa Babacar Seck lycée Seydina Issa Rouhoulaye numéro 64 039 lycée Mam Abdou Aziz Dabakh de Guédiawaye lycée euh, numéro 64 040 Serigne Fallou Seck lycée Seydina euh, Limamou euh, numéro 64 041 Seynabou Seydina Issa Rouhou numéro 64 046 Ahmed Fadel Mbaké Sène lycée Seydina Limamou Laye numéro 64 049 Cheikh Sène lycée Seydina Seydina Limamou Laye numéro 64 052 Fatou Sène lycée Seydina Limamou numéro 64 055 Khady Biteye Sène lycée Seydina Issa Rouhou Laye numéro 64 50 école privée laïque Racine School numéro 64 057 lycée Mame Abdou Aziz de Guédiawaye numéro 64 062 Ndeye Sène lycée Mame Abdou Aziz Dabakh de Guédiawaye numéro 64 063 Papa Mamadou Sène centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Pikine Papa Matar Sen, lycée de Pékin. Numéro Victoire Bénédicte Sen, lycée Seydina Limamoulaye. Numéro 64 068, Jean-Jacques Wagan Senghor, lycée Limamoulaye. Numéro Khadijatou Seydi groupe scolaire Gaston Berger numéro 64 0 77 Sey lycée Seydina Limamou numéro Fatima Sey lycée Mam Abdou Aziz Dabakh de Guédiawaye numéro 64 0 79 Fatou Sey lycée Limamoulaye numéro 64 0 81 Maimouna Sey lycée Mam Abdou Aziz Daba de Guédiawaye numéro Mam Mati Sey école privée Machallah School numéro 083 Mandiaye Sey académie Limamoulaye numéro 64 085 Mohamed Sey lycée Seydina Limamoulaye numéro 64 090 Salah Sey lycée Seydina Limamoulaye numéro 64 091 Yag Sey groupe scolaire Le Baobab numéro Fatimata Idrissa Sidibé académie Limamoulaye numéro 64 Simal lycée Seydina Limamoulaye numéro 64 Sonko lycée banque islamique numéro 64 Bachir Souané lycée Seydina Limamoulaye numéro Aminata Sougou lycée Seydina Limamoulaye on continue numéro 15 Aïssatou Soumaré euh, carillon scolaire Limamou Laye numéro 64 121 Sow lycée Seydina Limamou Laye numéro 64 Ahmed Tidiane Sow lycée Mame Abdou Dabakh de Guédiawaye lycée numéro 130 Cheikh Omar Sow lycée banque islamique numéro 64 130 Djenaba 100 numéro 64 133 Djenaba Sow lycée Seydina Limamoulaye fin de liste. jërë ngeen jëf mbokk ñu doon seetaan Sénégal 7 TV en direct li mu nekkoon 011 35 bu lycée Limamoulaye donc.

chiffres yi donc ñu continuer wala si chiffres totaux yi ñu continuer rek li nga xam ni euh, moom moo nekk mm, alors euh, proclamation résultat ba tey si li nga xam ne moom mooy jury 11 11 37 la ñu jëm fi na ne nii jury trent cinq euh, daal nay daal nay pare <laughs> ngeen topp ñu ba tey si li nga xam ni moom mooy alors si Sénégal 7 Amidou bi fee ñu daal voilà donc topp leen ñu bu leen bouger ñu dem fi nga xam ne mooy 0 11 37. que jury 11 37 moom moo nekk di délibéré on est un peu en retard mais bon ñu dem couvrir ko rek puisque nous étions euh, fi nga xam ne moom mooy au jury 11 35 ñu continuer ak yéen rek si li nga xam ne moom mooy euh, délibération wala proclamation résultat back général session 2024 ici lycée neuf Aminata Ndiaye mention passable soixante cinq cent soixante quinze Abdou Abdou Sakhor Ndiaye mention passable soixante cinq deux cent soixante six Fatou Sy mention passable soixante cinq cent quatre vingt quinze Astou passable 65 311 Mamadou Tall Patsab 65 289 Mame Cheikh Ibrahima Silla Patsab 65 217 Diarra Ndiaye Patsab 65 148 Abdou Ndaw Patsab 65 239 Mame Diarra Bousso Sow motion Patsab 65 244 Moussa Sow passable 65 203 Baydi Abou Ndiaye passable 65 218 Diara Bousso Ndiaye passable 65 150 Adam Ndaw passable 65 159 Modou Ndaw passable 65 285 Khadijatou Silla passable

Aminata Sow Ndiaye passable 65 277 Pape Youssouf Sy mention passable et fin de liste voilà mbokk yi mu nekkoon euh, fi nga xam ne mooy jury 11 37 mu nekkoon série S2 premier tour dañuy jàll si deuxième tour bi si li nga xam ne mooy jury 11 37 par ordre de numéro table ñu Lisa Mendy

lycée Seydina Limamou Marie Sabel Mendy lycée Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Guédiawaye écoutez s'il vous plaît 65 lycée Banque Islamique 65 Nanki lycée Issa Rouhoulahi

Rouba Ndaw lycée banque islamique 65 Ndaw lycée Seydina Limamou Laye 65 169 Ndaw lycée Seydina Limamou Laye 65 176 Abdourahmane Seydina Limamou Laye 65 179 Adja Maguette Diop Ndiaye lycée Seydina Limamou Laye 65 179 Adja Maguette Diop Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Guédiawaye 65 182 Aïssatou Seydina Limamou Laye Alassane Sy Ndiaye lycée Seydina Limamou Laye 65 185 Alass 192 Anta Aram Ndiaye lycée de Pikine 65 204 Baye Djibi Ndiaye lycée Seydina 65 205 Baye Mbaye Ndiaye lycée Seydina Limamou Laye 65 208 Bouba Seydina Issa Rouhou Laye 65 209 Cheikh Béthio Ndiaye lycée Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de lycée Seydina Issa Rohou Laye 65 222 lycée Seydina Limamou Laye 65 223 école privée groupe scolaire Assane Seck 65 228 lycée Seydina Limamou Laye 65 232 Sow lycée banque islamique 65 234 Abi Sow école privée Khalifa Mansour 65 235 école privée LGSE 65 236 complexe scolaire Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh 65 lycée Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Guédiawaye 65 Sow lycée Seydina Issa Rouhou ñu continuer ba tey ak keneen parce que dafa sonn si yooku bi 65 242 Mbaye Sow 65 Sow 65 247 Sow

65 295 Ndeye Fama Silla 65 301 Sidi Tamban 65 2 302 Soxna Kewet Tage 65 303 Abdou Tall 65 305 Alioune Badara Tall 65 312 Mohamed Lamine Tall 65 314 Mbayang Tall

Awa Thiam mu nekkoon li nga xam ne moom mooy série S2 si euh, résultat admissible yi maanaam ñi nga xam ne ñoom second tour la ñu jàll ba tey si jury 11 37 donc euh, ñu fàttali leen ne jury 11 37 moo doon délibéré donc euh, jeex na mu des li nga xam ne nag moom mooy jury 11 38 ak jury 11 39 ak jury 11 40 mbokk yi depuis ce matin yéen ñu doon topp dañuy seetaan donc ñetti jury ñoom ñoo délibéré gum ñoo proclamé gum fi nga xam ne moom mooy si centre Limamou Laye mu desee ñi nga xam ne nag moom mooy ñetti jury yoo xam ne nii